وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر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 kon ñu jox Baye Somb euh, kàddu gi euh, euh, noddukat mu yëkk mu yëkkat mu mu mu sànn ci ay kàddu incha allah bisimilah. alhamdulilah bisimilah inna waliyullah mbooloo mi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant boroom daara ji ak ki fi taxawal daara ji di leen xamal ni lii ngeen nekk. lii ngeen nekk dafa bokk dafa bokk dafa bokk ci li nga xam ne nii nii moo moo moo mooy li gënal Sëriñ Tuubaa ndax bu ma saa séddale ay ñam ni yóbbul ma sama waakër boo juumee ba yóbbu ko ci biir këram boo ñëwee bu la laajee fa nga ko yóbbu ngan ko ci ki biir kër laa ko yóbbu dala naa demal nga jëli ndab yooyee man bu ma nee sama sama waa kër ñi jàngalee alxuraan ñooñu noy sama waa kër ba tax na kon yéen ñii nga xam ni yéenay liggéey ci alxuraan am ngeen cër boo nga xam ni nii nii lu mat di bàyyi xel la waaw nit nag dana am loo nga xam ni du ko xam waaye lii ngeen yor comme que dëkk bii bi mu koy sanc dafa waxam ni dabuwuma fu may sàmme dabuwuma fu may bayee fu may jaamoo yàlla laay wut fii ah wax itam ni li ma gënal ci kaw suuf mooy ñi nga xam ne nii ni ñooy jàng alxuraan xam ko ba pare di ko xamle comme que ñooñu noo gën ci kaw suuf nag ku yàlla defal taw yi nga bokk ci war ngaa xam war ngaa xam lim la dénk lu mu loon ba tax na ah nii ngeen def nii gune yu ndaw yii nga xam ne nii nii am na lu nga dugal ci seen bopp ca mën a leen bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi nu foy ndax bu ngeen xoolee nii nu tooge nii ak nii ñu sañsee ni toog nga xool ñi nga xam ne nii ni ñu ngi ci mbedd mi taxawaal fii jataay bi rek fi mu ne daa boppam ndax boo xoolee tey ñii nga xam ne noo yor alxuraan ji di ko jàng nii ñu sañsee toog ak ñii nga xam ne dañoo ci mbedd mi taxawaalu boo xoolee fi ci jataay bi rek dal di koy xàmmee ba tax na alxuraan moom ku yàlla defal tawféex yi nga ci yëngu ah yàlla desa doolu rek ci kaw suuf ah duñ def nag lu may sant ah, sant itam borom borom borom kër gi nga xam ni moo nu dugal ci ñaanuk sëñ Touba ndax tàbbi ci ñaanuk sëñ Touba dafa dafa dafa yóbbu te képp kuy jàngale alxuraan mën na ni tàbbi nga ci ñaanuk sëñ Touba képp kuy nodd mën na ni tàbbi nga ci ñaanuk sëñ Touba ndax dafa ñaanal ci dëkkam bi askan wuy taxawee waxtu yu juróom loole nag balaa mën a nekk force jàkka dafa am comme que moom rek dama fi ab jànguwaay def fi jàkka def fi fajukaay kon mel na ni. la sëñ Touba doon doon doon wut bu doon bu doon bu doon dix pour cent moom am na neuf am am am na neuf sur dix kon bu doon dix sur dix moom am na neuf sur dix ndax li sëñ bi soxla woon yëpp def na ko ndax bala ngaa mën a jaamu yàlla dangaa ngaa wér comme def na fi fajukaay def fi def fi jàkka def fi fi nga xam ne ca jàkka tam ku xamul ku xamul mënoo mënoo mënoo dem ci jàkka kon mel na ni mel na ni sëñ bi bëggan ci dëkkam bii Ah, moom mi ngi ciy bay aw waaram ba tax na yéen ñi nga xam ne nag yéen da yàlla defal tawféex yi ngeen ngeen yoro alxuraan bi bis ba ngeen dégg borom dëkk bi li mu ciy soññee ak projet bi mu taxawal fii àdduna sépp man de maa ngi mës a dégg projet bu toll nii ku ko taxawal ci xam-xam waaw 37 milliards ndax ah, jumaa ji bi ñu ko yokk sëñ lu laaj laajte milliards ak genn wàll booba Jean Collin moo fi ne di premier ministre wax Abdou Diouf ni ko yow si sëriñ bi ndax moom moom xam na xam na luy milliard ndax xam na luy milliard mu ci tagaat genn wàll kooka kon tey bu bu dekki woon tey ba ñëw gis ki nga xam ne nii tey ab sëtub sëñ taxawal projet 37 milliards kookee doon yéem milliards ak genn wàll kon kon moom ku moom ban taxawaay lay am ba tax na Touba nan xam nan xam dëkk bi ne daal nan nan ko xam nan xam ko day dëkk bi ne ndax dëkk boo nga xam ne nii lépp lépp lépp lépp taw féex la suuf si day ram lépp di ramm garab yi lépp lépp lépp tow féex ndax bi muy bi muy sam ci dëkkam bii boo ci mat la bu fu say nii la nga xam ne nii doon na ko fi ñaan ah, ndax lépp ñëw na xam naa ne suñu at bariwul waaye waaye waaye lu ci bari moom fekk fekk na ko ndax am na lu ñu yëg ci mat la bu fu say nii ca am naa tam loo xam ne dañ cee teg suñu bët ca loole ba mu koy ñaan boobay dëkk bi dara ñëkku fi woon baas bi daal mooy yéen ñi yàlla sédd alxuraan bi ndax alxuraan moo yenu àdduna buñ ko dul woon jàng bis bu ne ba tey kenn waxatu jàmm jii nu am itam ci Touba alxuraan ji fi jàng dong moo moo moo moo nu ko may ba tax na wax ji moom mën naa bañ a gudd ndax wax ci yaatuwul ah moom daal maa ngi soññ Babacar ak képp koo nga xam ni yaa ngi yëgu comme ci lii muy yëngu ngeen xam ni daal li ngeen yor mooy li gënal sëñ Touba ci kaw suuf ndax alxuraan moom nun ne nu ko waay di moomee rek sëñ Touba moomee na ko noonu waaw ndax moom bu dee dañ ko koy sa borom may na ko bu dee dañ ko koy sarax nu ko war a moomee rek moomee na ko alxuraan ba tax na ah, yàlla na leen yàlla jàppale defal leen tawféex di jaay seen wujjoot ah yokk kartanu borom daara ji itam ak wërsëgam ak wéram ak nit ñi nga xam ne ñoo fi daje ñun ñëpp